Yeah, my you uh, pass, pass, pass, pass Facebook USA. Wow, wow, that's what I Mm -hmm. I see. interview parce que les Fatou moom mooy moom Pastef bu mu nekkul Pastef sax. Mhm. dëgg la dëgg si si si si si. non si je je la connais même. dëgg la dëgg vraiment c'est des grands patriotes donc. Euh, Nous euh, ngi page euh, Facebook ou USA euh, Patriot. nous y ngi en direct donc nous avoir une impression par rapport à Taïdi. D'abord, la victoire et aussi Taïdi, Le li Patriot au niveau de Washington DC. jaay ñëpp ñu ngi leen toog pour ñu leen liggéey. tey jii vraiment c'est une consécration. ñëpp kontaan nañu rek lañu sant yàlla. ñu santaat yàlla bu baax a baax a baax ndax ndam la ñu may. te du ndam bu ndaw. ndam doy waar bi ñuy xaj. ndax yàlla moo ñu tàngal ba fekk parce que ñoo may xaj. yàlla moo ñu ko tàngal mu nekk xéewal. pour Sénégal. donc ñun ñëpp ci war a jàpp nekk ni liggéey bi d'accord donc aussi bon la victoire est là mais yéen bi aussi diis na attente bi sénégalais yi di aussi tamit dafa reuy quoi attente bi yéen léegi tey jii yow euh, boo doon tey jii sa sa cadeau par rapport ak euh, lan ngay xaar ci le nouveau président ak manam accompagné bu ñu and di xeex boobu legi lan mooy sa attente. Mm-hmm. sa sa vraie personnalité. mais nit ku am fulla la nit ku dëgg. nit koo xamante ne nit ñi la donc bu fekkee jël na ko def ko déjà ci mu nekk mu nekk en bandoulière. mu nekk tous les patrimoines. jàppale ko ndax benn benn benn lamb. dëgg la fekk il faut que mu def des efforts des efforts conjugués.

これあこれいやいやいやいやパスñu si page page kii bi page USA boobu ko mën a kii tuuti xam nga mu wax Ei! Aí, cabra. destination ça. waaye man balaa ma doon takk sama semaine problème nga ne laa ci amoon. naa la woon xaaral laa war a jox ci kii bi xaaral ah non ko jox téléphone am. moom moo doon moom moo nga solal ko ko ne nga solal ko ko. ah am téel téel téléphone bi téel ah, téléphone bi téel téléphone téel téléphone patron patron baa ngoog ah. fi de mu ngi mu ngi si biir fii. noo koy Roland. Ah. <laughs> I mean, he was here. Huh? What is this? Huh? Yalutanga Jomali? Oh, oh, okay. I'm going to go to Merci, Let's va, Amad? I mean, I mean. mu ngi fi dem fii moo moo fii léegi xaw ma fu mu dem waaw Pastef USA ah. séeréer yëkkati leen seen loxo séeréer benn un deux waaw nëbb leen mburu yi hide your sa waa na xaw dañuy dañuy live euh, kii euh, euh, page Pastef USA yee yee yee jaajëf ah waaw dégg ngeen félicitations yéen e, yi nekk ci Facebook bi di ñu wax gouvernement bi nu mu war a mel arrêté leen waaw tawaag naa naamu kii nga ndogu nga ah ok nice alhamdulilah ana ana gi What's that? Okay. touch. Come uh, on, no, uh, hold on. Come on, put on Lolo Killer. Uh, Ini nyari kabel lah. Hah? Apa This Zumbi is not even, It's not running. Zumbi, est-ce que... No, this not running. Wow, Munda, then I connect, join the Zoom here. Huh? Can my host play? Hold on, my host. On this computer? Yeah. Mine is Salvia, mate est-ce que doo jéem a woo keneen parce que dama nekk def ay régulation doo jéem a woo Sokh. kan moo ma joxoon téléphone bi sax est-ce que du Yaya. eh ça va Badaad Sëli ça va. ok so what you wanna do. zoom bi da nga ko bëggoon this bi mooy Roland bi but is there oh okay actually here. We must start. Let me start this one. Okay, uh, so this one is the one pending for 9:30. No, this one. Pass, pass over. Huh? I mean, this is a meeting ID. This one, these are logged in already. Uh, there shouldn't be a password. No, no. There's no need. How to be book connected. Okay, I'm gonna stop this here because this is getting annoying. Leggy, this is what you do. Can I just be? No, that sounds nice. That sounds nice. Parce que, ben, moi, moi aussi, man du kii yooyu fee. right no exactly non moom li mu bëggoon connect. day share day share experience day deploy uh, Yeah. hey uh, Roland. do you need da nga audio pour bi Zoom or you can cut the audio out. no no no. we can cut it out. so now how how people are going to listen to. ah. on the other computer right. Not Malay, likewise. Which one is doing audio for Zoom? No, this one is the main Zoom. This, this one is doing audio? Okay, so we share screen? Why share screen? Can I play the key audio on. No. Yeah, no, no, because I know you have two computers connected. Bangabuga keep as the main audio. Alright, so let's keep this one. This one uh, failed anyway. So turn up volume. Oh. Uh, that was Mohammed Gays connecting. Uh, let, let me just try to shut up. I'm going to, do, I'm going to, I'm going to let Mohammed yeah. to be the, the host. the host. Okay. So I, can um, have only one host. So you can, Munga, is it a uh, free account? No, it's not a free account. Uh, so account, you, can, the, mun, you can add a co-host. Munga make host. Why can I co-host? <laughs> No, it, oh, okay. What Who gave me this thing? You have to pay okay, at least $200 something, $100